cette situation la il faudra sortir. Le gouvernement se donnera les moyens de sortir de cette situation. Et cette situation-là, on va sortir de ça. Mais dafa am adduna bi yëpp dafa am ay manifestation après le gouvernement réagit en en tenant compte des équilibres. on a en face des gens ñi nga xam ne dañoo bëgg a suruxal réew mi nous on a en fa nous on est dans des positions où il faut renforcer notre système démocratique où il faut renforcer euh, la paix où il faut renforcer la sécurité à tous les niveaux. Et nous y travaillons. Et je pense que Dieu nous accompagne à ce niveau-là. Et les Sénégalais le savent. Parce qu'aujourd'hui, dans ceux qui parlent des réseaux sociaux, sociaux gis nga man tey depuis ce matin on m'appelle de partout way dëkk baa ngi tàkk dëkk baa ngi tàkk te yoo xam nga ne dëkk bi tàkkul te ay sénégalais ñooy jël di joxe image yu baaxul di wax ne dëkk baa ngi tàkk dëkk baa ngi tàkk c'est vrai on est dans une situation bu kenn bëggul il faut régler le problème mais aujourd'hui dañuy yuuxu ne ay sénégalais de nañu baa ñu ngi lakk fii ñu ngi lakk këru jàmbur yi fii ñu ngi def alors que ça c'est c'est parce que tout simplement dañ leen toppul ñu yeewu fii Sénégal ñëpp bokk ñëpp amay mbokk ñëpp mën lu nañ mën keneen mën na ko ñu ñun on est dans une dynamique de protéger le pays de protéger les Sénégalais bañ leen a fitnaal et wax ji yëpp loolu la kan moo nekk ci position fitnaal ak kan moo nekk ci position fitnaal on va aller vers des élections c'est les Sénégalais qui choisiront et on a un système démocratique kenn mënu fi sàcc élection non nañu nañu calmer le jeu